moom moo gën daal dinay génne photo bi nga xam ni mi ngi ko doon wax ni ki démb ginnaaw ba muy def ab vidéo naan am na ay audio yoo xam ni dafa daal di fuité daal di jugee si Ousmane Sonko ak i vidéo ak i photo photo boobee ngeen gis nag moom moo ko daal di posté nekkat bokk na si photo yi nga xam ni mi ngi ko doon wax ni ki démb mu daal di des ay vidéo ak i audio waaye sax jëf yi yëpp mën nañ koo jàppee ab montage ndaxte kat bopp bi ñu gis du bopp Ousmane Sonko. yooyu ay kàddu nekk ay kàddu yoo xam ni moom moo Moora moo ko daal di yëkkati nit ki tey daa di tuub si photo bi niñ ko bàyyee mu génn cent pour cent nii waaye dañoo bëgg ngeen gën a comprendre ndax ñii ñi ngi naan vidéo yi ak audio yeeg photo yëpp dañ koo monté